la ilaha illallah muhammadu rasulullah salaamaaleykum mbokku internet Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi fii ci zone B villa 30 fekk fi benn ndog bu fi am ci bis bi nga xamante ne ci la Sénégal doon jàmmaarloo ci final bi Coupe d'Afrique benn xale bu góor bu ñuy wax Birama Ngom mu def accident ci li nga xam ne mooy motowam bi ñu doon jubilé yàlla dogal nag ci lundi bi la ñàkk bakkanam ñu toog ñi nga xam ne ñooy ay famem sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la loolu ngay delloo ziar moom naka la. man Maguette Ngom wante dadi lañ may wax. lan nga ci Birame Ngom. moom ñoo bokk ndeex baay moo topp ci man. ñu bëggoon xam euh, choc bi nu mu demee ana ci ban anam tamit la ñàkkee bakkanam. Ah, waaw choc bi nu mu demee seetaan euh, match bi ba mu jeex man ak moom ñoo ko seetaanandoo ba mu jeex. mu génne man maa ngi garé sama scooter ba ay zéro heure une heure mooy ma taal sama sœur pour ñibbi nu may génnee sama angle koñ bi sama benn copain woo ma ma taxaw moom nu may waxee moom foofu la choc bi amee nu ma taxawee moom di wax même pas 30 minutes mu jógee sama ginnaaw ñëw am scooter bu doon génn si benn koñ ñoom ñaar ñu dalante moom mu dugg si suufu oto bi man ma daw mënuma taxaw foofu xool ko quoi ma dem wax sama benn ndiyaay Modou def na choc fee mais dafa gaañu quoi parce que boobu tiitoon naa xaw ma nu mu demee léegi si lañ ko jëlee yóbbu ko hôpital dans le coma quoi après mais lundi ay 18 heures si la gaañu sapeur pompier moo jël si yóbbu ko ay 18 heures la gaañu quoi. bi nga xamante ne def na choc bi ngeen koy yóbbu hôpital gis ngeen ci moom ay gaañu gaañu. non man taxawuma fa ba ba muy dem gisuma ko parce que man dama daw jóge foofu yëpp. mais ci ñu ma dégg daal ñu wax nee nañu amul lu toj ci moom ah, naacul daful dara waaw dafa tëccu daal. ban hôpital ngeen ko yóbbu woon. waaw parce que instant yooyu yóbbu nañ ko hôpital Fann sama grand frère moo demoon yóbbu nañ ko hôpital Fann waa hôpital Fann bañ ko jël ñu jóge hôpital Fann yóbbu ko Dantec Dantec tamit bañ ko jël mais après principal sañ benn ndijaay fii bu tudd Moussa Diop moom moo woote principal si dañ koy doog a jël quoi. dafa amoon waaw moom amoon na jabar mais après ñoom ñaar nekkuñu ko amoon nañ benn doom doom bi man mi ngi sax tuddee man la ko tuddee. ñaata at lay am moom ki génn àdduna. moom vingt-huit ans vingt-huit ans la am. salaamaaleykum maman ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa leen di delloo ziar. tur bi naka la. yaay yaayu ki nga xam ni mooy Ibrahima. waaw mooy yaayu. nan nga yëgee accident bi. tiitaange rek tiitaange rek mu metti ma lool metti ma lool sama doom bi moo ma doon defaral lépp lépp lépp mooy jëndal lu nekk sama sama doom bee ma ko defaral dundal mooy def lépp bëggul ma xiif bëggul ma mar dina ma manqué torop torop torop torop moo may wéttali tamit yàlla daf ko toppoon si man daf toppoon sama xol bi ma ko bëggoon mu bëgg ma. tiitaay wallaahi tiitaange rek toog rek bañ na ma xale bi def na soog ci tali bi wallaahi. biñ ko yóbboo hôpital dem nga gis nga ko. Hmm? biñ ko yóbboo hôpital dem nga gis ko. ma ndax boobu na ma daanu boobu na ma daanu fii mënu ma ma woon dem. nga mooy borom oto bi ñëw na fi. déedéet gisuma ko gisuma ko. scooter bi. kii yam yi pàppaam yi ñëwoon nañ fi ñoom ñëwoon nañ fi gis ñu waaw. ndax état yónnee nañ fi ndaw wala. déedéet giseegu ma leen de giseegu ma giseegu ma leen. lan nga leen di dénk lan ngay xaar ci ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo yor wàllum sécurité askan wi. parce que man kay li may ñaan si ñoom ndax sama doom ji moo ma doon defar lépp moo ma yoroon bari si man man yërmande. bëgg rek ñu jàppale ma jàppale ma rek te yàlla tax ne tax wéeruwuma fenn wéeruwuma fenn wéeruwuma moom rek laa wéeru woon te mi ngi nii dem na. soxnaam mu ngi fi. Hmm? soxnaam. waaw soxnaam mi ngi fi waaw. am ñoom ñaar bant. amuñu bant am na keneen nag ki mu njëkkoon takk am na ñu bant xale bi am na ñeenti at ak genn wàll. Hmm. leen di masaw bu baax a baax di ñaan suñu borom yërëm. amin amin amin amin amin waaw salaamaaleykum waaw li ñuy ñaan rek mooy waa état bi ñu dimbali ko ndax xale bi moo yoroon yaayam yaayam sësul fenn amul kenn ku ko jàppale ku dul moom xale bi baax lool nag dee bi nag dafa bett yaayam dañuy ñaan daal ñu dimbali ko. luñ ko mën a dimbalee rek waa état nañ ko dimbale waaw joueur yi tam buñ ko yégee nañ ko dimbale parce que ñoom la doon supporter kon nag ñoom tam ku ko ci dégg na dimbali yaayam ndax yaayam amul woon lu moom moom rek la yaakaar kon nag ñoom tam nañ buñ ko yégee nañ ko jàppale Sadio maane ñoom ñëpp wax dëgg yàlla bu ma limee damay juum ak Aliou Cissé ñoom ñëpp wax dëgg nañ ko jàppale rek te yàlla tax ndax yaayam doomam ji rek la yaakaaroon. sëñ bi maa ngi lay nuyu di la ñu delloo ziar bu wér soxna si. tur bi naka la. Daouda la. Daouda lan nga ci ki nga xamante ne mooy Birame Ngom. waaw ah, moom vraiment sama xarit la woon et nit ku baax la woon ñoo daan ànd guddeeg bëccëg mu nekk nit koo xam ne lu ko waay teg moom dina ko nangu nekkul woon koo xam ne day mer man mii di wax ak yow lu nekk laa ko daan def waaw. nan nga yëgee li nga xam ne mooy choc bi. choc bi lépp sama bët la ñu ngi toog ni ñoo waroon ànd man ak moom bi mu demee ci laa ne gaaral après ci bu kii bi commencé ñu dem jubilé ji mu ne ma non maa ngi def tour ñëwaat ci bi muy def tour nag ci la doon dawal moto bi ak benn force bu vitesse bu bari doole jékki saay am benn pula bu yoroon moto coupé ko. ci la dale nag fekk ji benn 4x4 buy jubile di ñëw 4 x boobu xaw na ko laal yéeg na ko tuuti. 4 x yéeg na ko. na tuuti yéeg na ci côté faar yi quoi. borom 4x4 bi taxaw na wala. non mujjul dem parce que oto bi dafa la jaaree panne dafa mujjee panne quoi vraiment. après ci ngeen ko jëlee yóbbu ko hôpital wala sapeur moo ñëw. sapeur ñëw na mais xaw na yéex nag. vraiment liggéey sapeur jour boobu xaw na yéex waaw taxaw nañ foofu ñun ñoo ko doon calmer ak kii vraiment ñu ngi. jërëjëf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah لا إله إلا الله محمد رسول الله أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع Mame Boye ñu ngi lay nuyu di la ziar. yàlla yàlla nangu ziar bi maa ngi lay di fay bu baax a baax. tur bi naka la. man Kumba Sall dëkk dëkk Plan Jaxaay 11 bay. tata Kumba lan nga ci ki génn àdduna. man tantam laa maamam laa yaayam sama doomu day la waaw. génn àddu bi nag euh, lu ñu metti la ndax xale bu baax moo dem xale bu jàppale ay mbokkam jàppale waajur bu jigéen xale la wante xelu mag la yore man bu ñëwee sama kër kenn ñëpp kenn ñëpp kenn ñëpp kenn baaxam ak yow ak yorom jeune bee bi góor jigéen mag ak ñëpp a ko jooy te bu doon xeex rek ma xam ne bu ñu sàtte kenn du dem ndax gis nga ministre des sports ñoon ñooy jàkkaarloo lépp lu fi xaw soo ba jan soo dana mobiliser xale yi yóbbu du politicien sax waaye dafa mun jàppale appel sport moo nekk si xelam xëy na nag li ñuy wax rek loo gën a bëgg yàlla gën loo ko bëgg ñu war a gëm yàlla moo fi des wala dina ñàkk doom ju baax si kan xam nga kan ngeen koy xama si kan bi la la ko defee dafa doon supporter ndax sangu na sol ay déguisement mayo yi ni day dem si bopp koñ bi fila la yem. Ah, ci bopp kañ bi fii la amee la accident bi amee. Eh, fii xam nga léegi fii motu sa 200 mètres la soog bi am mu metti ñëpp nag metti ñëpp nag ah léegi nag ñu ngi ñaan yàlla ay bi. yàlla jox yaayam lu ko féeto te état bi ñu ngi koy ñaan na jóg si ñi xam ne dañoo si ak ñi décédé ndax am na ñu xam ne ay xale na ñoo doon jàppale seen parents yi moom bàyyi na bàyyi na bant jabo ji moom dañoo xawoon diwoot sax seen diwoot bi sorewul ndax mu ngi toog léegi te ñi waaw na jàppale parents yi xam ne seen doom yi dem nañu dégg nga ñiy blessé nekk hôpital tam lañ leen jàppale lii am na lu mu amee si ngir tur Sénégal amee ak bànneex Sénégal la amee kon nag bu lii am ñu jol yi jot ñu fàtte ñu dem man loolu la amoon si kàddu yi métti nañu noonu trop trop trop trop trop da xale boo tuuti amoo sax 30 ans nga ba nga affaire li yóbbu la si kaw zéro yàlla baax nañ ñu ngi koy dus yàlla nag wala mett na trop ndax feetu la ndem gauche feetu la ndem droite ñoom ña ñett am ñetti góor am mooy kii ak taam bu góor bi te xam nga ñi ko la xool ay xale yu tuuti lañ moom nag si kii la topp moom mécanicien euh, kii la woon euh, scooter waaw xamuñu fen xamuñu sàcc xamuñu taxawaalu seen kër atelier ba loolu la ñu xam te kër gi jeune bee ba jeune bee daj boo ne villa 30 kër googu ku xam na ko xamuñu génn xamuñu doye xamuñu dara ful ak seen payda ak jom nañu am ak liggéey loolu ñu xam si lañu sutura seen yaay seen baay daa génn àdduna seen seen day nañu nekkal fi ak seen tante à part dara. waaw ñu ngi ñaan nag état bi na si taxaw surtout Matar Ba nag ñu ngi ko see woo ministre des sports na génn seet ñi nga xam ne du yàlla dogal dogal lii seen bakkan dafa de si bis bi mu génn moom Matar Ba ndax boobu moom jeune bee la nekk euh, fi équipe bi nekk euh, ambassade bi nekk ak kër gi même même pas 20 euh, mètres waaw bu laajtee jeune bee virant 30 mooy kër gi mu ñëw gis mbokk yi waaw merci beaucoup xam nañu mbokk moom toogul. amul jot wante moom mi yore euh, affaire fédération bi gis a ak parents yi. léegi moom borom oto bi nga xamante ne moom la fekk ji borom oto bi ñëw na fii wala borom scooter bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo daje ñoom ñaar ñëw nañ fi. waaw borom oto bi moom police mu ngi ko doon laajte borom scooter bi ñëwu fi wante ay parents ñoo nañ fi démb jël seen délégation ñëw di jégalu ndax pulu futa la waaw moom pulu futa la wante gisuñu ko nag moom wante moom euh, papaam ak frère ak beneen nijaam ñoo fi ñëw. waaw ah, démb heure bi dem ñu ngi fi waaw ah, borom oto bi nag man gisuma te waan police nga ko doon laajte ndax bi soog bi amee xale yi tiit nañu woo nañu chapeau chapeau ñëw nag jotuñoo ko saa moo tax sax affaire bi tardé nii bu doon woon loolu fekk sunuñ ko depuis démb saa bi moo taxoon bi xaw a tardé waaw ah, dossier yi tardé loolu la. naa dencagu leen ko ba léegi. ma léegi la jógee morgue euh, kii principal ñëw ndax comme que bu na ko ñett hôpital ñu récité ko am ku jël responsable ko. principal ñu téye ko mu ngi nii léeg-léeg lañu corps bi ñëw boobu mu ngeen corps bi yaa baax noonu. yóbbu ngeen ko ci lu toll ñetti hôpital ñu rejeté ko. ndax léegi mu ngi nii euh, bu ñu yàlla dafa jàmm bu ñu julli tisbaar ci lañ koy yóbbu yóbbu ko boromam. hôpital principal la génne àdduna. waaw. comme tey comme jour final la la ko la la am soog bi laan demee mu décidé waaw. moom presque bu muy dem sa ba bakkan muy dem moom ñuy wax dund na dee na loolu la sapeurs yi boo leen wooy dañuy yéex a ñëw police présenté wu waaw donc xam naa yëguñu ko waaye nag commissaire bi tam bi def na si effort nga moo ñu dimbali li jënti yëpp ba si kaw ba si tam ñu koy sant ko gërëm waaw. Mame Boye ñu ngi lay nuyu di la maa ngi lay fayu nuyu bi siyaar naa yow tam. tur bi ma du Yoro Niang. maam Mamadou lan nga ci ki nga xamante ne moo génn àdduna. xale bi daal suma set la suma set bu baax la ku dimbali ndeyam ku dimbali magam yi ak ak rakkam yi yëpp amoon na soxna soxna bi mu ngi fii soxna bi dañuy tase woon fu ma nekk ni edda bi jeexul des na fu soxna bi bu léegi daf mel na soxnaam la biñ ko bu ma tàggoo ak moom yàggul. li xam ne affaire bi dem euh, nekk na soxna bi mu ngi toog mu ngi teeñu hmm. ku baax la nag dañ ma woo ñu ne ko accident def na soog démb barki démb ci guddi ñu woo ma ñu ne ko mu ne na hmm. ku baax la nag moom ak kii ñoo bokk moom ak kii ak rakkam bu jigéen ñoo bokk ndey ak baay te ku baax la ku tabe la affaire bi dañ ma wax rek affaire lu ma liñ may wax affaire bi football bi senegal yëpp bëgg lu ñu nommoon ak lu ñu bëggoon ñun yëpp cible bi ak yuuku bi moo tax kontaan bi lii la yàlla dogal dafa kontaan bi nga xam ne ma accidenté ma génn ci yépp ci affaire football bi moo ci ñëw lii yàlla dogaloon. moom lan la doon liggéey. man wax dëgg yàlla ko lu ma nekkoon mu ngi liggéey ah. mécanicien la te man kam fu ma nekk nii maa ngi dikk Kër te te nekkoon ci maire bi maire bu nekk fii ci Point 1 ah Fala fu mu nekk nii lu ñu am lu ñu kii daaw ci tabaski bi xar yu ñu jënd yëpp ci ñun la ñuy jënd fale ci Kër Massar indi ko fii ci moom ak maire bi moom borom nit la bokk digg yàlla koñ bi yëpp ak lu mu am ci nit tabaarkalla macha allah borom nit la borom nit la lu mu am ci nit sax man si wàllu bokk yaakaar naa amoo ku baax la wax dëgg la ku tabee la loolu laa xam. ngi leen di nuyoo lislaam xale bi génn sunu sët la bi mbir mi amee nga xam ne vraiment wëllëram la taxaw na ci taxaw famille bi kayit yi ñu waroon toppatoo yëpp maanaam Moussa Diop toppatoo na ko. Moussa xaritam la. xaritam la mën nañ wax sax waajuram la parce que dañoo déggoo woon. moom moo gën a ñàkk waaye yàlla lu mu tudd kenn mënu ci dara li may wax nag ci kàddu famille bi lay wax taxaw bu ñu waroon taxaw taxawee na ko li ma ciy dolli mooy bi mbir mi amee ñu bare woon nañ ma te bu ñu demee fere bi ñu waroon def foofu hôpital état bi jël na ko en charge parce que Moussa ci état bi lay liggéey ñu jaale ko président de la république jaale ko. Ah, ki ko yóbbu hôpital ci état bi lay liggéey. ku ko yóbbu hôpital waaw ci état bi lay liggéey. léegi frais yëpp frais yëpp état bi moo ko def. waaw frais yëpp am na ci yoo xam ne état bi moo ko def parce que 24 heures rek la fa def donc kayit yi li ko tardé loon mooy comme niñ ko waxee bon jotu loon def costa mais sapeur pompier bu ñëwee jël ko yóbbu ñoom dañu am rapport. ci rapport boobu nag la ñu basé wu pour mën a def yenn dossiers yi donc alhamdulilah sotti na lépp léegi mu ngi ci morgue bi li mu ci dolli rek mooy ñi nga xam ne tamit ñi ngi doon laajte ban heure lañ ko fexe nañu boo jot ko ñoom ku mel ne ministre Mame Mbaye Niang ak euh, directeur euh, Bouna Kanté ak euh, conseiller Awanaar ñoom yëpp taxaw nañ taxaw yoo xam ne taxaw bu rafet parce que yil téléphone am di laajte kañ la kañ lañ koy yóbbu kooku euh, am na lu mu taxawee métti na nag métti ci Sénégal waaye lii la yàlla dogal jaale senegal yëpp nag nga xam ne yàlla na ko yàlla yem loo fi te mu nekk njiglaay réew mi parce que yàlla kenn du xëccoog moom kenn xalaatul noon ni bu génnee lii dana am kon ko lii yàlla dogal nag mi ngi jaale réew mi yëpp pour état bi tamit ci xel ci ñi nga xam ne génn nañ àddun ak ñi nga xam ne ñu ngi blessé ñu ngi ci hôpitaux yi opito yëpp débordé loolu rek laa ci bëggoon dellu maa ngi sant ñëpp sant ñëpp sant leen yéen tam ndaxte yéen a ngi def loo xam ne vraiment lu am solo la ñu ñaan yàlla seen télévision bi yàlla na dem bu raw ñëpp ci barke tam ay ndaw ngeen yàlla na yàlla sàmm ci barke Seydina Muhammad loolu rek lañ ci bëggoon dolli comme kàddu ñu ngi leen di remercier jërë ngeen jëf. merci beaucoup. Tata ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi leen di sant di leen gërëm vie mii fi jóge nii tey ñun ak papam ñoo bokk ndey ak baay mu nekkoon xale bu baax bu yaru bu am yërmande nekk xale boo xam ne dafa nekk l'homme douze métiers liggéey bu nekk mu ci. barki démb rek saan jàpp nañ fi sama taw góor fii police jëppal mu yore moto. xamu ko woon sax mais dafa dem dugg rek ne waa ji joxal kii moto bi mu jox ko ko lii nag du jaas te moom i kenn yéenewu ko lii fii mu jóge nii fa jëm yàlla na ko gënal fii mu jóge yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam xale bu bëggoon yaayam bu am yërmande ñi fi des sam yàlla nañu barkeel lépp lu ñu mënaloon yaayam ñi fi des na nañ ko ko munal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dolli rek di ñaanal sunu mag gi Balla Ngom mi nga xamante ne moo ko jur yàlla na ko yàlla xaare àjjana fee bala tëdd mu sedd guy yàlla na seddee guy ci boobu moom fii ci barke Seydina Muhammad jërëjëf